mbokk yi ñuy jàkkaarloog ci seen chaîne Safina TV ñu ngi leen di nuyu ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di sant yàlla gannaaw bam ñu mayee ñu dellu siwaat ci seen émission religion et société nga xam ne day yëttewoo lépp loo xam ne diine la waaye lépp loo xam ne aussi société la ndax ku ne xam ne ne diine ñëwul lu dul luy defar société ak luy yeewaneel dundiinu doomu aadama yi ba tax na kon Euh, mooy waral léeg lekk ñu ñëw ak yéen ci thème boo xam ne diine kese la léeg-léeg ñu boole diine ak societé léeg-léeg ñu ñëw ci société kese kon émission bi euh, noonu la tëddee euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa danay wax ne man la lam yahtam bi umuuril muslimina fa laysa minhum képp koo xam ne yitte woowoo mbiru jullit yi bokkoo ci ñëw gën na yaatu sax nag jullit yi kon loolu moo tax tey ñu am fi gan gu màgg muy ko xamné jeune leader la jité ben mouvement bu mag fi ci Grand yof xamna dana ci ñëw incha allah di ko xam aussi conférencier la di juriste de formation muy Aboubacar Ba ñu yag ko dégg ci ay yëngom ak ay activitém motax biñu commencé lu melni nga xamné ne leeg day soxla ñu ñëw ci walu société walu dëkkin ak yu mel nonu ak walu actualité sax surtout ñu xalaat dalal ko fi moom Aboubacar Ba Euh, kon tey mooy suñu gan ñu war a waxtaane kon ci ay points yi wuute danañ ñëw ci wàllu sécurité bi nga xam ne insécurité bi nga xam ne temps yi moom la média yëpp di wax rawatina fii ci Grand yof dana ñëw aussi ci wàllu mouvement bi naka la tëddee ak ci yenn yëngu lay yenn yëngu-yëngu lay def euh, danañ ñëw aussi ci sujet d'actualité yi yi nga xam ne sosal euh, soxal na bépp képp koo xam ne jeune nga waaye képp koo xam ne tamit parent nga kon Aboubacar Ba ñu jox la kàddu gi nga nuyoo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 Euh, di kontaan aussi ci teewaay bi nga teew oyof gi ak euh, yëpp disponibilité bi ñu ci ciy kontaan bu baax euh, question bu njëkk biñ ñu lay posé mooy mouvement bi naka la tudd ak yan yëngu-yëngu lan moko ko tax mouvement politique la wala ban ban genre mouvement la. waaw jërëjëf encore une fois di de le remercier ci question bi. Mhm. donc mouvement bi. Mhm. nekkatul mouvement wu Grand yof parce que aduna lepp loy gis rek. Mm-hmm. dafa am départ. Mm-hmm. bu njëkk ba peut-être que bu ñuy dogo a créer mm-hmm. créé woon nañ mouvement de citoyenneté. bu tudd Scat urbain top. mais lolu luñ ci si won moy réunir. jeunes Grand yofi, les inciter au travail. les inciter wax leen ne que. ab gox. su bëggee dem si kanam ñi fa dëkk ñoo koy defar. donc loolu benn pàcc bu ñu indi woon la rek. mais par la suite. dañ foo jóge créer benn mouvement boo xam ne day réunir lépp. day réunir ñëpp. Mm-hmm. de réunir presque un visionnaire, mm-hmm. de réunir nous, nous savons que nous avons beaucoup de choses, de réunir nous, nous savons que nous avons beaucoup de choses. Parce que nous sommes tous les deux les mêmes. Donc, euh, avec le voyage, nous sommes tous bitim réew. permettre nañu ñu am yeneen connaissance. Mm-hmm. permettre nañu ñu am yeneen ouverture mm-hmm. loolu moo tax ñu créer benn mouvement mm-hmm. international. tuddee ko mouvement international des jeunes panafricanistes. donc mouvement la boo xam ne du mouvement politique. mouvement à but non lucratif la. lu ko tax a jóg mooy. ku si nekk rek indi sa wàllu si loo xam ne sa dëkk day dem si kanam. si loo xam ne sa continent day dem si kanam. parce que gëm nañ ni loolu mission la. xaaruñu si dara. xaaruñu si xaalis xaaruñu si leneen. benn devoir la boo xam ne dañ koy apporter rek. ndax loolu Mhm. très bien présentation bi am na solo trop kon vous ce sa mouvement bi dafa un comme comme euh, euh, mouvement yenn activistes yi nga xam ne Sénégal. Mhm. du du soreek genre mouvement yooyu. du soreek genre mouvement yooyu mais am nañ différence. Mhm. parce que nous sommes un mouvement. bien vrai que mouvement panafricaniste la. mais du mouvement au parce que nous lu ñu mm-hmm. problème au Sénégal mm-hmm. problème en Afrique mm-hmm. ñun africain la donc mouvement bi Mmh. dafa taxaw dem mmh. pour ñun ñu défar suñu jikko yi mmh. li ñuy wax changement de mentalité pour ñun liggéeyal suñu bopp ñu bañ a topp dirigeant yi si yu bëri bëri parce que mouvement comme yi ngay wax activistes yu ñuy gis yëpp ñoom suñuy xeex mooy dirigeant yi fi nekk xeex tubaab bi xeex français faak yu kenn xamul peut-être que ñoo bokk jëmukaay peut-être que ñoo bokk gëm-gëm mais bokku ñu ñuy doxalee daal parce que ñun dañoo gëm ne problème Afrique problème Sénégal ñun suñu bopp la donc ñun suñu jikko la ñuy njëkk changer d'abord avant ñuy wax leneen ak leneen jërëjëf ci leral yooyu amna solo trop ndax benn waykat bu arab daan na wax nan innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa inhum muzahabat akhlaquhum zahab jikko moy li nga xamne mo yor nation nation bu la gëna bax ay jikko mo la gëna jëm kanam kon seen xex bobu nek na lu am solo ñi ngi lañ ci encourager bu bax benen question bi moy walu insécurité bi nga xamne mi ngi ci gox bi di Grand yof Euh, comme mouvement bi nak Grand Yoff la juddoo donte international la. Euh, du mën ñak kon ngeen yittewoo euh, genre problème yoy ku ne dégg na fan yi étudiante bi nga xamné mom lañ fat mhm. euh muy congolaise bi yakarna mhm. euh mu xewoo fi ci Grand Yoff. Mhm. bimu xewé yeen en tant que mouvement bo xamné ne ci citoyenneté ngeen commencé ban taxaway ngeen ci def. waaw euh tout d'abord dañuy mastawu. di ñaawlu lool. incident boobu fi amoon muy agression congolaise bi mhm. yaakaar naa ni nit ki moom su jógee dëkkam mhm. ñëw si dëkku jàmbur mhm. te comme que dañuy wax ne Sénégal moom pays de la teranga la pays bu hospitalité bu am hospitalité la yaakaar naa ne yooyu su amee daal dañ koy ñaawlu bu a baax a baax a baax di leen mastawu di naan yàlla xaare ko àjjana mhm. waaye lu ñu si mën a wax mooy insécurité bi mhm. avant nit ñi di di si wax wala mhm. avant média yi di si jot ñun defoon leen si ay jéego maanaam déposé woon leen plainte au niveau du commissariat de Grand Yoff man personnellement j'ai eu rencontrer le commissaire ñu waxtaan si lu bëree bëri bëri pendant une heure temps waxtaan si insécurité bi et tout avertiroon naa ko ne ko ah insécurité bi de chaque jour que jëfee a commissaire au niveau de Grand Yoff mhm. xam ne yaa yor suñu yaa yor suñu sécurité mhm. yow yaa ñu war a aar mhm. nga def si ay matukaay parce que jeunes yi déterminé taxaw neen temm ne agresseur bu ñu si jot agresseur bu ñu si jàpp tamit wax dëgg yàlla dina la ko dina la ko jébbal ñoom ñoo koy fajal seen bopp te loolu wax dëgg yàlla nit taxaw naan Grand Yoff rey neen fa nit maara day taale wala Grand Yoff def neen fa lii loolu day ñaw moo tax mu bëggoon wax dëgg yàlla mm. ngeen teel a jël seen matukaay mm. donc dalaloon na suñu xel mm. waxoon nañu ne que wax dëgg yàlla amoon na ay éléments yu ñuy mettre au niveau du terrain mm-hmm. pour insécurité boobu ñu mën koo xeex mm-hmm. mais gis neen ne que yi mm-hmm. affaire bi jéggiwaat na wala affaire yi ñëwaat na. Mhm. dinañ si defaat lépp lu ñu si mën a def. Mhm. su fekkee dañuy jubalaat plainte. Mhm. defaat ko dinañ ko defaat su fekkee dañuy defaat conférence de presse. dinañ ko defaat su fekkee dañuy defaat yeneen taxawaay dinañ si defaat mais loolu incha dinañ si waxtaan suñu biir. parce que comme li ma la wax rek ñun xaaruñu autorités yi si dara. xaaruñu ñeneen ñi si dara lépp ñun ñuy dëkk biir Grand Yoff màggee fi juddoo fi. ñun ñoo a fajal Mhm. benn journaliste bu siiw ci Sénégal danay faral di wax ne ku artuwul da nga àtte. léegi kon yéen artu woon ngeen. Mhm. moo tax àtte fekkagu leen ci. Mhm. Euh, mais affaire yi dafa xaw a euh, doy waar goo xam ne yaakaar naa artu sax du la tere àtte. ndax Grand Yoff moom ku ne insécurité. dafa mel ni fii la fekk baax. looloo taxoon sax yaakaar naa euh, police bi ñu mujjee ko def commissariat nekk ko woon. mais insécurité bu ëpp moo ëpp moo taxoon ñu def ko commissariat. loolu est-ce dajale acteurs yi nekk Grand Yoff yëpp def ci waxtaan bu gën a yaatu. Mhm. xam lan mooy cause insécurité bi. Mhm. ak yan solution lañ ci war a teg. waaw exactement comme mm. li nga wax rek Grand Yoff moom li ñu koy déglu si insécurité. Mm. wax dëgg yàlla bëri na. waaw euh, que tey képp koo wax ne man Grand Yoff laa dëkk sax su la mm. waree seet si day ragal. donc euh, dañuy dem ba. yenn heures yi sax say waajur naan la bul génn heures yi. bul def lii bul def laa. ba le laa gis benn. Euh, nit ñi envoyé ñu si whatsapp yi benn genre texte nañu yéen ñii di yor yéen nii yor oto soo leen dawal fexe leen ba vingt deux heures soo leen di jaar Grand bu leen wàccee seen vitre maanaam dañoo dëkk si dëkk boo xam ne ñun ñii dëkk fa sax amatuñu sécurité ce qui est extrêmement grave waaw di war di moytu di dawal war a nekk àll ni na la noo sa oto sécurisé ko wala bul wàccee vitres yi sooy aw Grand mhm. loolu dafa dafa ñaw si dégg-dégg maanaam mhm. c'est-à-dire que mhm. day ternir l'image de comme li nga wax rek. Mhm. dañoo war a boole acteurs yëpp. Mhm. imam mhm. chef chef de quartier. maire ñoo xam ne dañoo bëgg a nekk maire. police ñi am benn waxtaan wala benn jotaay bu yaatu. ñu jeunes yi xam ne ñun ñoo yor ay mouvement ñun ñooy diriger suñuy gox peut yàlla moo ñu ko may. ñeneen ñi topp ñu ginnaaw. ñi dem genre rassemblement. ñi waxtaan suñu biir wax insécurité bi lan moo ko fi dindi. parce que tant que insécurité bi moo ngi fi. grave du mën a dem kanam que nit mënul def. lu bëree bëri wala réaliser ay affaire yu bëri te xelam dalul mhm. donc il faut que suñu xel dal mhm. il faut que nit ñi di mën a dox seen soxla en toute sécurité mhm. il faut que insécurité bi ñu combattre ko te loolu comme li nga wax rek il faut que ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp booloo nekk benn pour ñu mën ko xeex très bien na solo fi nga génnaat wax nga léegi ay mouvement yu nekk ci Grand Yoff acteurs yu wuute est-ce que yéen seen mouvement bi mi ngi collaborer ak yeneen mouvement yi pour pour euh, genre problème yi maanaam problème Grand Yoff de manière générale ngeen mën di ko waxtaane non non ñun suñu mouvement collaboré wul wax dëgg yàlla ak yeneen mouvement yi. Mm-hmm. mais ñun ñi dëkk Grand Yoff mm-hmm. ñoo ngi jéem a xool nan la ñuy collaboré. Mm-hmm. ak yeneen mouvement yi. nan la ñuy jéem a collaboré ak kilifa politique. yoo xam ne dëkk neen fi. maanaam ñoo xam ne dañoo bëgg a nekk maire. ñoo xam ne dañoo jege mairie bi. dem ba si comme ni ma la ko waxee sànq rek dem

am na yeneen yu ñu fa mënoon fekk ak mm. yeneen yu bëree bëri bëri ah. mais ñu jël suñu initiative bopp dem commissaire mm. jébbal ko plainte wax ci waxu insécurité bi mm. je pense que dans un premier temps loolu rek la ñu mënoon def mais bu ñu ko defee yàlla dimbali ñu ne peut-être que insécurité bi wàññeeku woon na parce que commissaire bi lu mu waxoon ne dinañ teg ay éléments ay ñoo xam ne dañuy siwulu peut-être que gisoon neen ko mais dañoo dem ba benn biir benn moment boo xam ne affaire yi gis nañ ne ñëwaat na mais ñun ñoo ngi waxtaan ak ni war a waxtaanal. Mhm. ñoo ngi teg li ñu war a teg. Mhm. te incha comme li nga wax rek. Mhm. peut-être suñu mouvement collaboré ak mouvement yu nekk Grand Yoff mais ñu nekk biir Grand Yoff dinañ seet si waxtaan ak imam yi dinañ si waxtaan ak chef de quartier yi dinañ si waxtaan ak président ASC yi. peut-être yàlla may nañu ouverture boobu. te incha allah dinañ si taxaw thème pour insécurité bi bii baa daal. de façon définitive. très bien ce nga wax avons solo question après une question d'actualité euh, Grand Yoff la mhm. Grand Yoff une mhm. relation Grand Yoff. en ah. tant que mouvement. Ah, donc nous sommes la une la. Mhm. relation mairie parce que comme nous ko mouvement sans pour autant ni teg suñu bët wala ni teg ay collaboration ak ay maire ak yu kenn xamul. Mm-hmm. ndax peut-être que yooyu après da lay dévier. si mm-hmm. politique bi rek. te comme que ñun suñu mouvement comme ni ma la waxee mouvement du mouvement politique politicienne. parce que mm-hmm. du ma ne mouvement apolitique la. parce que ñëpp xam nañ lan mooy définition politique. mooy koo xam ne day taxaw thème pour dëkkam wala pour système dem ci kanam. donc mouvement politique la parce que ñun loolu moo ñu taxaw a jug. mais amuñu benn relation wax dëgg yàlla ak mairie bi. parce que ñun man li ma gëm mooy Grand amul maire. Hmm. man loolu laa gëm. Hmm. te waaw loolu laa gëm. Hmm. te loolu laay wax it. pourtant euh, nit ñi ñoo fal ñoo voté fal seen maire. waaw nit ñi ñoo ko fal. mais ñun peut-être dëgg yàlla. te mais yéen Grand Yoff ngeen dëkk aussi. waaw Grand Yoff lañ dëkk. lu ñu gëm mooy Grand Yoff amul maire parce que ku dox biir Grand Yoff rek. plus précisément Scat Urbam da ngay laajte ndax fi am na maire wala ou pas. du nekk nag di attaqué wala di dugg ci politique bi carrément. mais lu ma gëm mooy Grand Yoff amul maire. moo tax taxaw neen tem. que képp ku bëggati jot di mairie Grand Yoff mhm. ak noo ko mën a jotee mhm. ñun politique ñu àndu kenn mhm. mais ak noo ko mën a jotee tamit di nga jaar si ñun wax dëgg yàlla wala di liggéey ak ñun si lu bëri Mhm. parce que Grand Yoff ñun fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yaroo wax mhm. dëgg yàlla suñu Grand Yoff la mhm. donc duñu nangatu kenn jóge ci àll bi ñëw nekk ci mairie bi def lu ko neex ñun ñii xam ne amaguñu dara wala nekkaguñu dara di jël ay initiative yoo xam ne ñoom ñoo ko waroon jël loolu dineen ci taxaw temm te insha allah dineen ko xeex ba Grand Yoff dineen jéem a def tuubu am beneen xar kanam am na solo trop mais est xaar nañ ci seen xeex boobu ngeen initiative la boo xam ne wala benn projet la boo xam ne moo ngi ci kanam. Mhm. ndax euh, wax dëgg yàlla. Mhm. peut-être que du ñun ñoo joxe. Mhm. mais ñu bëri daal yéene nañ ñu meeru Grand Yoff. wax dëgg yàlla. parce que te loolu depuis tout tànk la. peut-être wax dëgg yàlla bu ñuy dugg ci combat bi. comme ni ma la ko waxee rek. dañoo ne ñun suñu devoir rek la def. mais tey yàlla suñu dimbalee ba activité yu bëri. ñu koy organiser. sans pour benn. homme politique nekk suñu ginnaaw mm-hmm. muy ay don de sang mm-hmm. wala ay sit ay ay affaire de citoyenneté parce que mm-hmm. ñun ñoo fi njëkk initier don de sang ay journée set setal ay xeex corona ay ay ay joxe ndogu si koor gi loolu lépp ñu koy def wax dëgg yàlla peut-être que bu ñu am pour suñu gox la ndax avant ngay bëgg a laaj réew wala avant ngay bëgg a laaj continent sa gox d'abord da nga koy njëkk defar te nit ñi dañ la fay xam peut-être que ñu bëri yéene nañ ñu maire Grand Yoff en nañ jéem a xool ak équipe bi yëpp ak ni ñuy àndal. na li ñuy def daal ba taxaw si bu soobee yàlla. yàlla baax na incha allah bu loolu wéyee ñu ñëw ci jeunesse sénégalaise de manière générale. ñu xaw a génn grand yëf xayaatal waxtaan bi. muy lan mooy wareefu jeune. ci société ban taxawaay la jeunes yi war a am ndax gis nañ ne Afrique yéen Afrique moo leen yitteel. Afrique la majeure partie de sa population ay jeunes lañ. loolu moom ñëpp seede nañ ko. léegi mais jamono bi boo xoolee ci réseaux sociaux yi yaa ngi gis euh, ñu ne jeune sàngam moo def nangam moo partagé vidéo le sàngam mm. euh, genre yooyu ñu ciy gis jeune boo xam ne ëllëg yaa war a yor réew mm. euh, moo tax ñu laaj la question boobu jeune ban taxawaay la war a am ci société nga xam ne liñ koy séentoo ëllëg dana ko mën a taxawee ah. jeune moom mhm. taxawaay bu rafet la war a am si réew mi mhm. parce que damaa doon dégg ancien président de la république mhm. mi maître abla di wax nan mhm. wax ma ban jeunesse nga am. mo mhm. wax la ban peuple ngay am. Mhm. dans l'avenir. avenir. donc euh, ñun jeunes nous ñun on est appelé à diriger dans l'avenir on est appelé à avoir beaucoup plus de responsabilité à prendre les choses en main donc li ma gëm moy wax deug yalla jeune so nekkee ci yoon wax deug yalla da nga wara am taxaway bu rafet parce que dëkk bi comme nima la ko waxee rek ëlëk ñun ñokay yor waaw très bien am solo trop mais vidéo yi ñi partager fan yi ay vidéo le motif kii def na nangam. yow pour yow lolu lan moy lan lan mo koy indi lan mo koy indi jeunes yi dañ top sen banex wala dañoo nekkul ci liñ wara a nekk wala. wala sen diine lañ xamul wala dal yow pour yow lan mo wara a yu mel noonu dëgg yàlla lépp. est-ce que lu meuna am lu wara am la aussi. waaw lepp ban dal loolu mom wax deug yalla avant tout ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, parce que. tey suñu waxee duñu wax ni kii moo ko def wala diw moo ko def mm-hmm. mais dañuy naan jeune Sénégal li mm-hmm. jeunesse su Sénégal mm-hmm. wax dëgg yàlla léegi jeunesse bi dafa doy waar te da ngay déglu mag yi mag ñi mag ñi baax ni tey ñoo xam ne tey mën nañ wax ne ay homme sage lañu loolu la ñuy wax ah jeunesse Sénégal bi wala xale yi léegi ñëpp lañ yi boole parce que nit ki su defee dara ñëpp ngay boole si même sac te peut-être amaan na ñoo xam ne ñoom seen xel newul si loolu moo tax wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ñaawlu bu baax baax a baax mais li may wax rek Mounir mooy euh, que base bi lañu raté àdduna lépp loo mën a def soo ratee base bi rek rate nga lépp parce que mm-hmm. base mooy lépp mm-hmm. day mel ni ngay tabax kër rek mm-hmm. mu war a am fondement fondement bi soo ko ratee kër gi du dëgër te comme li nga wax rek muy wàllum si wàllum diine bi si wàllum jàngale bi si lépp la ñuy rate lépp lépp lépp parce que dañoo bàyyi loo xam ne moo fi amoon bu njëkk ba mais suñu maam yu baax yi yu ñu doon jàngale seen discours maam Seydi Hadj Malick tey maam Cheikh Ahmadou Bamba bu Kunta Ndiassane ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey amoon na amoon nañ ay message yu am solo yoo xam ne ñoo ngi koy doon véhiculer pour waxal jeunesse bi loolu tegagu tegatuñ ko maanaam télévision yi tey wala média yu fi nekk dañoo dévier jeunesse bi yépp ci ay affaires yoo xam ne ay affaire yu ñàkk solo la te moom moo tax tey dañoo jël suñu philosophie wala dañoo jël suñu xel yaakaar ne ni nag tubaab yi ñoo bokk alors que c'est pas c'est pas pareil c'est pas la même chose wax dëgg yàlla war nañ def tuuba yooyu ñu indaat ko de temps en temps jeunesse bi. ni mm. leen di tegal waxtaan yooyu xam ne mag yu baax yi ñu doon wax ci jeune. ci ndaw nan la war a taxawee si ndaw tey nan la war a def si si diine gi yàlla lan la wax ci jeune. Mm. yooyu yëpp tey dañ ko war a indiwaat pour yee jeunes yi pour wax leen na ko wax dëgg yàlla ñun tey ay joyaux loo xam ne tey ku si am taxawaay bu rafet rek tey sa sa réew war na mën a compter ci yow ndax gis nañ li ëpp ci ñooñu li muy dal mooy ñoo xam ne ay célébrité lañ. Mm. Euh, nit ki balaa ngay dem bay génn télé. xam nga mm. en général Sénégal kuñ gis ngay feeñ rek nga fés. Mm-hmm. dañ lay def royukaay. dëgg la donte yow am nga éducation de base wala amoo ko. Mm-hmm. léegi est-ce que laajul ñi nga xam ne ñooy dem ñooy jouer ay film wala ay série nga xam ne loolu euh, li ko taxoon jóg. cosaan bi mooy yeete mm-hmm. yeete maanaam mm, fexe ba nit ñi xam seen bopp xam ñooy ñan. Mm-hmm. booy xool théâtre yu njëkkee ay daaray Kocc ay jamonoy tey loolu moo nekkoon seen seen seen seen yitte mais léegi est-ce que mm-hmm. est-ce que série yi ni mu bëree ni muy gën a bëree est-ce que delluwuñ sax cosaan ci ci ci novelas yi nga xam ne moom lañ fi doon teg. Mm-hmm. est-ce que en quelque sorte nekkul série yi moo remplacé. Euh, film tubaab yi nga xam ne moom lañ doon bañ ak it tamit ñi koy joué ba la ñoo génne ñu defal leen benn formation boo xam ne danañ gëm seen dëkk gëm seen réew xam naka la ñuy doxalee ba nga xam ne ñoom danañ mën a nekk ay royukaay. exactement euh, lu am solo la parce que mm-hmm. comme li nga wax si mm-hmm. début bi la rek. Mm-hmm. Euh, théâtre bu njëkk ba wala série bu njëkk ba. dañ ko doon def pour muy yeete. pour muy jàngale. mën naa wax les mots qui gangrènent la société. Mm. wax ni ah lii de am na. Mm. ci société bi nii ak nii waaye ñun dañ koy jël reproduire ko pour peut yee leen. Mm. wala pour peut yenn erreur yi ngeen gis ci film bi. ngeen bañ ko def. mais je pense que léegi comme ni ma la ko waxee rek les choses ont changé. et changement bi c'est sur plusieurs plans. Mm-hmm. wax dëgg yàlla tey série yi man li ma gis. Mm-hmm. li ma gëm mooy yeeteetul. wax mm-hmm. dëgg yàlla série yi dañ koy def pour la forme. ñii soo seetluwee la plupart. ni mhm. nekk ci série ñoy ñooy ci plateau télévisé yi di animer ay émission mhm. te man lool la mënul comprendre. Mhm. parce que mëno nekk un un un jeune. jang fi nga wara jang def sa parcours. def métier journalisme. jaar école de formation ba paré journalisme. am sa diplôme journaliste ni jël ño xamné ño ñoo nekk ci acteurs yi ni animer télévis ni animer émission télévisée ça dit que man lool la mënul wa nekk fi ni jang jàng nekk fii di chômer. tay soo seetluwee so exemple bi euh bi muy def euh, lancement maanaam bi muy euh, woo maanaam bi muy def casting. Mhm. pour ay séries. Mhm. xoolal nombre de jeunes yu fa newoon. Mhm. xoolal population bi ni fa ni fa bëree woon xoolal jeunesse bi ni fa bëree woon. en si jamono corona. si jamono corona. c'est pour te dire que rek. parce que peut-être que mën wax ne. voix boobu moo gën a gaaw pour siiw. parce que une fois nga nekk si série rek siiw nga moom une fois nga nekk si série nit ñi xam la wax dëgg yàlla siiw nga wala peut-être que di nga am yenn daraja yoo xam ne. maa la day taale peut-être moo lay boo xam ne moo lay woo pour nga animer ko émission ak yeneen ak yeneen. siiw bi rek lañ soxla mhm. pour dire que. Mhm. moo tax série léegi lu may wax sànq rek ak peut-être que pour rejoindre la si li nga wax. Mhm. nekkatul ay série yoo xam ne pour yeeta la. wax dëgg yàlla parce que bu njëkk ba te ñi fi doon théâtre bu njëkk ba. ay jamonoy daaree kocc. ñoo xam ne nit ñi xamoon na leen tey acteurs yi soo leen waxee day naan série léegi wax dëgg yàlla yeete neexatuñu parce que affaire u tubaab la ñuy incarné vie européenne bi affaire u am xaalis te yooyu wax dëgg yàlla yeetatul du suñu réalité te dañoo war a wax dëgg yàlla di jàngale loo xam ne suñu réalité la loo xam ne ñun moom la am moom la yellool mais est nekkul aussi population ñoo bëgg loolu ñoom waaw parce que boo fi indee leneen aussi ñoom duñ ko duñ ko duñ la suivre waaw moo tax ma ne lépp si début bi la rek moo tax ma ne la base bi lañ rate base bi lañ raté waaw base bi lañ raté te te mm. ñëpp fautif. Mm. ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp am nañ si wàll. Mm. ñëpp ñëpp si am wàll wax dëgg yàlla. très bien ñëpp ñëpp ci am wàll moo tax ñëpp ci war a bay seen waar aussi. Euh, xalaat naa ne ñun am nañ culture bu riche boo xam ne. exactement fexee ba. Euh, am nañ ko doxalee am nañ ay boroom xam-xam ñu mm-hmm. toogee waxtaanee ko mm-hmm. mën nañ koo dëppaleeg jamono ci façon boo xam ne dina neex nit ñi te dina mm-hmm. leen yee loolu moom lu ñu mën a def la xëy na nag effort yemu mu lañ bugg la def wala am yeneen yu nekk ci ginnaaw loo xam ne mënuñu ko. mais lu mën a nekk la bu ñu wooyee borom xam-xam ñu toog. Mm-hmm. mën nañ jouer loo xam ne. Mm-hmm. Euh, du génn suñu suñu culture. Mm-hmm. dana yeete. te danañ ci am lu ñu maanaam li ñu bëgg. dana am solution ci yenn problème yi. Euh, loolu moom lu lu mën a nekk la. yaakaar na beneen bi mooy temps yi am na phénomène bi génn mooy allumette bi. damay damay xaw sama estati ya, Fuma ma gis ñu alimet alimet est ce que yow yëg nga bohamne nga phénomène boobu en tant que jeune boo xam ne da nga yor mouvement da nga jeune nga quoi yaa ngi yaa ngi ci réseau yi ya ak yooyu noonu bon ma de wax deug yalla murid yaakaar naa li nga si tolle rek laa si toll pour wax deug mm-hmm. man loolu ba léegi man comprendre ma ko mm-hmm. wax deug yalla ngi gis nit ñi di wax waxi alimet mm-hmm. mais damay xam dal sénégal peut être que dañoo nekk si caaxaan maanaam <laughs> te wax deug yalla man personnellement non sérieusement quoi man. Ah. wax dëgg yàlla yooyu aw sax jot nekk di ko xool wala di jéem a xam lan lay tekki ou pas parce que mm. aw ma jot boobu parce que damay xam ne yi fi mm. caaxaan la rek. Mm-hmm. te ab réew moom soo si nekkee wala mm. peut-être que soo amee yenn euh, yenn position yi wala yenn statut yi. Mm-hmm. yu bëri yoo xam ne wax dëgg yàlla peut-être dañ koy dégg rek mais doo si bàyyi xel waaw. ay allumette ak yu kenn xamul maa ngi gis daal nit ñi di wax waxi allumette mais ba léegi man peut-être que ku ma expliquer man ma comprendre mais man comprendre ma. vraiment distraction bi dafa bëri. non dafa bëri waaw wax dëgg yàlla allumette bi xaw ma boo boo ci kosee xaw ma ñaata brin. boo bàyyee ba guddi nga kos ci ñaata brin euh, def ko ci ndox. tudd turu ki nga bëgg. Uh-huh. kooku dalay topp. <laughs> waaw <coughs> ah, loolu de loolu de wax dëgg yàlla moom yow yaa ma ko wax nii. loolu moo ko tax a ah, kon loolu moo tax gars yi doon wax ay waxi alimat yu kenn xamul. gëstu naa daal ba xam ci loolu. gars daal dañoo dañoo bëri wax dëgg yàlla loolu de yow yaa ma ko jàngal maa ngi gis ay alimat ak yu kenn xamul mais mm. wax dëgg yàlla. mais pour yow genre pratique yooyu yow ban gis-gis nga ci am. genre pratique yooyu. ah mm. man di pratique yooyu day. wax mm. dëgg yàlla. est-ce que pratique bu pratique bu normal la góob ma ko di. waaw waaw doy na waar xam naa dama jàpp ne politique la rek. boo xam ne politique la rek parce que forme de communication bu ah, ñuy def. exactement pour distraire nit ñi. wala détourner nit ñi la rek. wax dëgg yàlla parce que moom nit ki nga bëgg moom. Mhm. jarul ngay def ay alimet rek yu kenn xamul. Mhm. très bien amna solo mm-hmm. mi ngi xamal ne nañu 7 minutes mm-hmm. bu amna lo bëgg message bo bëgg bo ah. Grand Yoff ak Sénégal jeune Afrique euh, lan lay doon waaw Mounir ah mm-hmm. di wax jeunesse bi rek comme nous ko yag parce que nous... bu ñuy débuté combat bi. Mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. peut-être gone bu gone yu ndaw la ñu woon. Mhm. dëgg yàlla ñu bind ñaari livre di voyager ci pays. Ah, Afrique bind ay waaw waaw jot naa bind ay livres. benn ci lan ngay wax. waaw benn bi la Sénégal ne réfléchit pas le développement la. parce que ni tax ma ne la Sénégal ne réfléchit pas le développement parce que dama gëm ne depuis mille neuf cent soixante. année bu ñu am suñu indépendance ba léegi. les choses vont de mal en pis Manam, dañuy gën dem mais mm-hmm. affaire yi day gën a jéggi dayoo mm-hmm. te tey exemple Chine mm-hmm. so jëlee exemple Corée en 1960 ñun nag dëkk yooyu. Mhm. ñoo bokkoon mhm. ñoo bokkoon tolluwaay si si plusieurs plans tey mhm. dëkk yooyu ce sont des pays waxutuma la sax pays émergents mais des pays développés. tey Chine moom li ñu wax ne mooy première puissance économique du monde. loolu lan moo leen ko may liggéey. wax naa ne amul ay malaaka yu wàcc seen dëkk defar ko. amul ay jinne yu wàcc seen dëkk defar ko. chinois yi ñoo xam ne dañoo war a defar seen dëkk jeune yu fa nekk ñoo xam ne fa leen juddoo wala ñun sax ñoo leen rawoon. Mm. temps yooyu noonu tey ñu mm. dem ba xoolatuñu sax. Mm. ñun toujours ñu bokk sur les vingt cinq pays les plus pauvres au monde. les pays les moins avancés. lan mooy problème bi. waaw problème bi mooy lu ma wax rek changement de mentalité. te ab dëkk avant nga koy defar il faut que nit ñi seen mentalité changé. parce que da ngay waxtaan ak seen mu gën mu ne la man de ah man de sama yoon new si dëkk bi. dëgg yàlla man de naa liggéey am sama xaalis rek yàlla après dëkk te ak lépp loo mën a def mu politique intéressé la ñàkk laa intéressé war nga am benn apport bu positif boo war a def pour sa dëkk dem kanam. Euh, ak euh, question boobu dama ko fàtte woon mooy ak événement yi fi mujjee xew. Mm-hmm. Euh, muy février ci ci février bi ak ci mars bi. Mm-hmm. ban jàngat nga ci am est-ce que jàppoo ne mentalité yi mi ngi commencé changer ndànk-ndànk. bon jeunesse bi ni ñu la changement ak yoy non waaw xam nga luma yag wax rek moy jeunesse bi mom wax dëgg yàlla nekkul jeunesse bu euh, bu indiscipliné jeunesse bi indiscipliné peut-être que dañoo xamul rek. Mm. mais peut-être que événement yi nga jot a wax mooy maanaam février ak mars bi gis mm-hmm. neen jeunesse bi ñu ñu jógee mm-hmm. wax dëgg yàlla di xeexal seen bopp mm-hmm. peut-être que mën neen wax ne wax dëgg yàlla léegi jeunesse bi ñoo ngi bëgg a jël les choses en main mais xeex bi du lool rek dëgg yàlla parce que dafa war a continuer n'est-ce pas te ku si nekk si ñoom gis neen ni am na ñoo xam ne wàcc neen si tali bi revendiquer am na ñoo xam ne wàcc neen si tali bi xuloo xeex wax dëgg yàlla pour am lu ñu bëgg pour am liberté bi ñu doon woote mais dafa war a continuer n'est-ce pas donc euh, ñun si loolu lañ nekk te chaque jour que jëfee

par la par au fur et à mesure wax dëgg yalla ñu ngi gis ni génie yi ñoo ngi rejoindre si suñu combat. Mhm. ñoo ngi rejoindre si suñu idéologie. Mhm. te loolu lañ ci doon wut. Mhm. donc euh, appel boobu daal lay lancer génie wax leen que ab réew. jeunesse moo ko war a mën a defar ab réew. jeunes yi ñoom ñoo si war a mën a taxaw. bu baax a baax a baax. donc euh, appel boobu lay lancer. donc euh, di wax ne ne ñëpp góorgóorlu te ku si nekk rek lépp loo war a mën a def pour sa dëkk dem kanam lépp loo war a mën a def pour sa gox dem kanam na nga ko def xam ne loolu devoir la parce que dafa amone ben chercheur allemand nekul sax africain. bu doon wax ne que chaque génération dans une opacité relative doit découvrir sa mission la remplir ou la trahir te ñun réew bu ñu nekk suñu mission mooy c'est-à-dire que apporter notre pierre à l'édifice il ne suñu wàll ci c'est bi pour suñu réew dem kanam indi suñu wàllu ci xeex bi pour suñu continent dem kanam te yaakaar naa ne loolu loolu bu bu ñu ko defee rek suñu devoir ba dëgg yàlla remplir neen ko te suñu tëddee mën nañ yelaw ba yandoor jërëjëf Babacar waxtaan bi am na solo bëgguñ sax mu jeex ndax euh, lu mu am solo mm. Euh, ba yan kàddu ngay tàggatoo. waaw di di la remercier bu baax a baax a baax baax mu ni si euh, occasion ak opportunité bi ñu jox pour ñu mën a exprimer wu wax dëgg yàlla comme ni nga ko wax rek temps bi gàtt na lool lool loolu hmm. xam naa dañuy wax waa waa waa waa Safina TV rek ni jéem a xool émission bi doon ñuy yokkee temps bi. incha allah xam am yenn occasion def yeneen. <laughs> incha allah amul benn problème en tout cas ça sera très grand plaisir parce que. Hmm. fii mom sama kër la wax dëgg yàlla parce que fii laa njëkk jànge alxuraan mm. Mm. donc euh, sama kër la mm. te ñii ay ñoom sàmba ñëpp ñoo màggandoo donc xam naa leen bu baax a baax baax donc di leen remercier si émission bi am na solo di euh, su fekkee dafa am kàddu yu ñagas ñu ngi siy jégalu donc li si rafet ñi santee ko yàlla bu baax a baax baax di nuyu ñëpp di sant ñëpp di naanal ñëpp jàmm jërëjëf euh, Ababacar Ba kàddu yi rafet na am na solo lépp rafet na macha allah di la ñaanal yàlla defal la nga continuer combat bi nga commencé te lépp lu ci njëriñ ngeen fekk ko incha allah yàlla barkeel ko euh, ndax jeunes yu mel ni yéen lañ soxla jeunes yoo xam ne ay panafricaniste lañ ñu amaat ay Thomas Sankara amaat ay Lumumba ñooñu soxla nañ leen ci Afrique euh, kon xam naa am nañ yaakaar ci ne kon loolu dana amaat buñ gisee jeunes yu mel nii di xeex porter komba bi euh, ñu leen di ñaanal di kontaan bu baax ci teewaay bi encore une fois ak OF bi disponibilité bi di la jaajëfal bu baax kon mbokk yi li moo nekkoon kon seen émission religion et société tey di leen jaajëfal bu baax ci seetaan gi ak topp gi euh, di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen mardi incha allah